asalaamaaleykum Walf Cuisine nuy naa leen sama gaay yi <laughs> gëj gisee ah waaw fan yii nag damaa déserté lan waaye nañ ñëwaat ànd ceeg Reen Herbes Épices defar maafe ginaar express bu nooy bu yolom bu saful kaani bëriwul dëwlin bu ndoxee boo xamante ni waaw boo ko lekkee da ngay dégg jàmm maa ngi noonu jël samay ñeenti cuisse de pule yoo xamante ni dama dini der bi waaw raxas ba mu set tranché ko pour mu gën a gaaw ndax express laa wax day gaaw a ñor daal di def sama épice su parce que jeexal naa épice su lakk ginaar maa ngi ñëw jàllale léegi sama message ci PDG wu Ren Herbes def ci nokkos voilà yéen a ngi gis épices yaa ngi tege ngeen mën ko fekk nag Auchan fekk ko ci EDK yi fekk ko ci hypermarché exclusif yi ak numéro de téléphone bi di affiché épices su nokkos laa ciy def noonu bu la neexee yokk ci épice piquante li la yaa di teg lekk moo tax defuma ko ci daal di mariner ba mu saf teg sa dëwlin voilà bu dëwlin bi sensé nga daal di jël nag say ginaar saaf ko ci fi may saafee dëwlin bi ak fi may toggee sama soosu maafe du du bokk voilà dafay nekk gain de temps boo xamante ni voilà astuce la rek pour mën a gagner du temps surtout ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi nam ay maafe mais doo ko mën def muy mijoter voilà bu ko defee nga daal di commencer saaf ginaar gi tegee ko nële muy ñor nga boo la neexee nga saaf ko si diwlin bi ba mu ñor bu la neexee nga def ko ci four bi ba mu ñor soog ko tëmbal ci soos bi voilà loolu man sama façon la may nuyu sama moment Awali bu nekk depuis Liberté 4 voilà moom moo may jaay tigadege comme boo jógee Sénégal yàggul damaa root ci gédége ne wax man dama bëgg maafe voilà ci gédége bu set bi boo ko xoolee xam ne amul xolit ma def ndox nag sama yaay bu ñu jàngal maafe ñun dañ koy xóoyal am na ñoo xam ne dañuy jël ci gédége bi def ko directement ci sauce bi voilà du nekk maafe tëmbal nag maafe rosi lay nekk daggat naa poivron tomate soble laaj moom laay rosi noonu soxla wu ma def nokkos booy tëmbal kaani tëmbalal kaani ma bàyyi tuuti mu dog ma sotti ci nokkos bi desoon voilà jël sama purée tomate def ci comme ni ma ko waxee léegi rek lu express lay defar ak amaa façon ama manière bi nga xamante ni li ma am ci sama frigo rek laay jël togg ci sama maafe bu boo xamante ni dafay wax ni nit voilà maafe bu normal lay nekk gis nga purée de bi laay ñëw def ci noonu voilà daal di yëngal yëpp amal gamewu comme ni ko feemu fii ak feneen di waxee voilà ma tëmbal ñoom carotte ak ñoom euh, pataas bu la neexee defal chupame voilà def ci euh, gerte bi ma doon yëngal maanaam tigadege bi ma jaxase ak ndox moom laa ciy sotti voilà léegi nag bàyyi mu dog tuuti ma def dawlin ñulug yéen a gi seen ginaar bi ne lu ci ruq bi ba léegi mi ngi waaj a ñor mais ñoragul mais soo ko bàyyee ci sa dawlin danga ko fay am mu ñor xom nga xamante ni sa soosu maafe bu tiga dégg bi ñoree rek mën nga yàq ñi nga xamante ne dañuy bëgg euh, style végétarien maafe bu amul ndawal mën nañu jël ci soos bi lekk ñi nga xamante nag carnivore yi comme ñun waaw defal ndawal wala nga def ginaar léeg-léeg ma def nii soosu maafe lakk samay entrecôte yu baax boole ko ak moom léeg-léeg ma def nii sama soosu maafe jël sama ay côtelette yu baax lakk ko boole ko ak moom voilà boo heure lekk jotee rek dangay jël ndawal bu ñor bi tëmbal ko ci may ko cinq minutes mu xelli xamanteeg euh, ñi ci biir soos bi rek nga daal di yàq voilà damay tëmbal su ma tëmbalee nag bàyyi mu gos diw bi génn voilà comme ni ñuy defee maafe rek bàyyi diw bi xelli euh, laataa ñuy ñëw ci yàkk bi bu leen fàtte ren Herbes Épices mi ngi disponible ci Auchan yi ci EDK yi ak hypermarché exclusif wala ngeen woote ci numéro téléphone bi di affiché yéen ñi nekk ci diaspora bi di laajte ba léegi site internet bi ngeen di dugg passé seen ay commande mën a am ci épices 100 pour cent naturel yi nga xamante ni ay place sénégalais ñoo ko tax a jóg waaw gëj a dugal rek moo fi nekk waaye ren herbe épice ngi fi voilà léegi nag xelli na nga xool sa texture sauce ndax bu dang nga bëgg wala bu ndoxee voilà ndax lii cere da koy lekk man dama koy lekk ak ñànk tang dama koy lekk ak euh, tofu voilà lépp pare na yàq moo ci des ñu def jeu présentation bu ndaw rek et puis je vous souhaite une très bonne dégustation euh, di leen wax ngeen continuer di liker partager comme ni nga koy defee saa su nekk ndax ñu atteindre un million abonnés yi voilà bu ko defee rek ñu joxante rendez-vous euh, ci biir semaine bi wala semaine prochaine ak ren Herbes Épices voilà ñëwee feneen andi yeneen astuce ay ca jaajëfal naa leen sama gaay yi très bonne dégustation maafe ginaar ngay am foofu bu neex sax aywa jaajëfal naa leen kenn du yéen sama gars kenn du yéen très bonne dégustation